Sada dole la Mana am ni Modou Mbenda suñu borom defal ko loole mu mel ni bu ñu gisee jotaay bii rek mu mel ne am na lu ko sabab muy bis bu sell bu tedd boobee nga xamante ni noo koy waaj di bisu jeewal muy màggaluk jeewal mu mel ni màggal gi bam dalee am ak léegi xëy na mu weesu fanweer ak ak juróom-benn jeewal nag bu ñu ko déggee mooy dëkk boobee ñuy wax tundu jeewal nekk ci village boobe di Thiamène waaye ci région de Louga kon foofee mooy jeewal jeewal nag bu ñu ko waxee xel yëpp dana am fu ñu dem muy suñu jàmbaar jooje as sayxana Ahmadul Xadim mu mel ni foofee la njëkk a jàkkaaroo ak tubaab yi muy tund jeewal duma leen fa moom nay waykat bi naan ko dem na jeewal te jeelut daan tubaab ba te xeexul kon màggal googee doon na màggal goo xamante ni màggalu murit yëpp la mu mel ni ci njiitalu sëriñ Abdou Mouhaymin moom sëriñ Mouhamadul Murtada moom Cheikhna Ahmadou Khadim ci lañuy woote kon mbokk yi ñu ngi woo mbokk jullit yépp mbokk murit yépp mag gone góor ak jigéen ñu ngi ci woo ñëpp te xam ne kat bis bi bis du murid yëpp la kon ñu ngi ci woo ñëpp ci bis boobee ñu teew ca teewaay bu am solo di jiital ci woo woote boobee daaira bii di daaira miftaawul xiyóori wal maram soppay Mamoor Jaara borom Saam mu mel kat ab sas dañ ci am ngir kat sëriñ bi ñëw na fi am kàddu yoo xamante ni dénk nañu ko bañ nangul ko kàddu yooyee kon fi eh, eh, fi mu ne li ci des rek mooy fexe ba kàddu yooyee ñu jëm koo sàmm tamatale ko kon woote bi ñun ñoo ciy jiitu ba noppi keneen door caa tegu kon ñu ngi ci woo mboolem waa daayira bi yëpp ere bi nag buñ ko tuddee bàyyuñ mbooleem képp koo xamante ni mi ngi ci koñ bi muy mag di ndaw di góor di jigéen ndax kat ab bis bu amee dana am organisation boo xamante ni dana fa lu ci mel ni wàllum waañ ba it du du ñàkk dañu ci soxla ay nit ñoo xamante ni danañ fa nekk kon ñu ngi ci woo mbokk taalibe yëpp bàyyuñ kenn كل كريم أكرم منام خادم له تكرم اللهم كل كريم أكرم منام خادم له تكرم أسلم له كل كلمان ولازم اللسان للرحمن وجوبي سلب فإسابه مع الجيران وجوبي سر بلا بران فإسابه مع الجيران وجوبي سر بلا بران فإسابه مع الجيران وجوبي سر بلا بران فإسابه مع